jërëjëf mbokk yi ba tey euh, yéen a ngi ànd ak ñun ci organisation juróomeelu forum international diaspora mouride euh, kon nu ngi fa yéene rek ànd ak euh, borom xam-xam bu mag ci yoon wi. di ko xam ne wax dëgg yàlla ku euh, fierté yoonu murid la di docteur euh, Sam Bousso di inspecteur de l'enseignement di un homme de lettres di nit ku gëstu ci yoon bi dégg ngeen sànq kàddu yi nga xam ne oratal na ko euh, ñu ngi tey ci juróomeelu forum kon international de la diaspora mouride organisé par li nga xam ne mooy daayira Ansar dajale li nga xam ne ay nit ñu dugg ci l'islam la jaar ci buntu Cheikhul Khadim rawatina ñu ci ëpp na ci diaspora bi ñu ci ëpp nag nekk Italie docteur ñu ngi lay nuyu baax te di la ziyaare ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak euh, bokk yi. jërëjëf sëñ Cheikh Ahmadou. ñu nga sant di am mbégte lool nag ci jotaay bi ñu teew. Hmm. waaye di am mbégte ci seq ak yéen jotaay ak waxtaan waxtu nekk ñu ngi di bàyyi xel seen taxawaay ak seen ñaanal suñu euh, mu mel ne am nañu ñun am nañ benn défi ñun taalibe Serigne tubaay yi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu nekk bitim réew. ba ay doomu aadama ay bindee fi yàlla gis sunu comportement yàlla taw féexe leen ñu dugg ci lislaam jaare ci buntu Cheikhul Khadim naka la taalibe Sëñ Tuubaa war a def ba war a na ba défi boobu nga xam ne défi yu multiple la jërëjëf li nga laaj day lu am solo ndax xam nga sëriñ bi ba muy yëkkati liggéeyam bi yemale ko woon bawal nekkutoon loo xam ne wolof yee ko moom waaye moom message universel la yor wala mën nga ne mission universelle la yor adduna bépp lay waxal adduna bépp nag moom ci jëmm du fa demal boppam waaye dafay am ay ndaw ay ambassadeur ñoo xam ne ñoo war a jëmmal njàngaleem ni mu doon yor métadam ci seen comportement war koo mën a transmettre ni nga ko waxee nag murid yi yàlla def na yar boo xam ne ñu ku leen gis xeemem leen ju bari eh, ndax eh, niñ mel ci adduna bi dafa ràññeeku waaye nag nit ki dugg si ci yow nga fexe ba téye ko ba def ci moom xam-xam ak comportement loolu mooy défi bi nga xam ne moom lañu war a relever mhm. maanaam fexe ba yoonu Sëriñ Tuubaa niñ koy dundee ñu gën koo xam gën koo mën a transmettre ndax nit ki mën nay dund ci dara waaye du ko mën a eh, transmettre mën naa xam dara du ko mën a jàngale kon dafa laaj waajtaay maanaam la ca jiitu mooy yëg-yëg bi maanaam diaspora bi yëg ne ñu rek ci ay tool yoo xam ne dañuy liggéey ngir luñ am waaye dañoo nekk bokk ci mission suñ tubaab bu yaatu boobu mission universelle boobu conscience boobu mooy jiitu nit ki am conscience ci man kat damaa war a tasaare njàng dem suñ tubaab conscience boobu bu a bi nga doxee doxin woo xam ne ku la xemem ba dugg ci yoon wi bu jaxasoog yow gën a fonk yoon wi gën a fonk la jàngaloon sëriñ mm-hmm. waaye nag xam-xam bi am ci waajtaay wi am ci ndax léeg-léeg nit ki mën naa xam dara waaye duñ ko waajal ci nu mu ko war a jàllalee loolu it dafa laaj ay mécanisme dafa mm-hmm. laaj léeg-léeg ni ci ci ci biti ñu mm-hmm. am ay barab ak ay doxalin yoo xam ne ñi ñëw dañ leen sedd leen bàyyi xel moo tax sax ñuy saluer bu baax a baax initiative bii ANSAR def nga xam ne dafa mel ne dafa bëgg a jëm ci wàllu xam-xam wàllu xamal ñi nga xam ne dañoo bokk ci yoon wi seen bëgg-bëgg dugg dugal waaye ñu war koo xam nag war koo doxe te biti bi bari ay défi bari ay jafe-jafe mhm. jafe-jafe yooyu naka lañ koy war a euh, fexe ba saafara ko ba noppi téye seen pas-pas mhm. loolu di lu am solo loo xam ne lu mat a la mhm. te gis nañ ne jéego yi ngeen di def ci foofu la dugg jërëjëf sëñ Sam mu mel ne am na benn phénomène bu bees bu yéeme boo xam ne dafa dugg ci liggéey boobu euh, te xaw ko maanaam mel ne lu koy gàllankoor ndax gis nañu ne tout dernièrement euh, gis nañ ne ñi fa daan dem ak seeni i famille seen njaboot ñu tudd xaadim tudd Moustapha léeg-léeg am jafe-jafe am ci digg famille bi ci biir famille bi jàppante diggante yaay ak doom wala baay ak borom baay ak soxnaam ba ñu jël doom yooyee nangu leen yóbbu leen ci seen structure yoo xam ne ni seen diine lañ leen di jàngal seen culture lañ leen di jàngal ak seenu làkk ba ñu dem ba ñooñee lan ne woon ci ñoom ci lislaam day daal di dañ nga xam ne war na métti na waaye gis nañ ko fa ay Moustapha yoo xamante ni boole nañu tudd ne yeneen tur nekk ci lan la ñu mën a def euh, rawatina daayira fa ne ak Sëñ ba mën a contrecarrer feneen boobu nga xam ne lu bees lu yéeme lu doy waar. loolu moom. Mm-hmm. Mm-hmm. bu rëy mm-hmm. bu mag a mag a mag a mag. ndax koo xam ne da nga waroon a dugal ñeneen. islam dugal leen ci yoon. nga amuk càggante ba ñi ci juddoo. di dem ci nekk ci leneen mhm. loolu moom jàpp naa ne responsabilité bu rëy bu diis la mhm. ndax damaa jàpp ne am na yëg-yëg boo xam ne ñu ko yëgoon mhm. lépp lu mën a jur loola ñoom dañ ko war a éviter waxuma la ni ñuy war a dundee famille ci seen bopp dañoo war a jiital njaboot gi dëgg la bu ñu xasee am njaboot njaboot googu dafa leen di tënkati waru ñoo doxale lu leen neex léegi ndax bàyyi xel njaboot waaye su fekkee ne góor gi ak ku jigéen ci dañoo topp seen adduna rek topp seen bakkan kese mhm. bàyyi wuñ xel responsabilité bi ñu amee mhm. loolu mooy jur phénomène bokkuñu ci daayira yi bokkuñu ci association sénégalaise yi daanaka ay tubaab bi ñu lañ lool parce que ndax tey xale bi ñu jël yóbbu ko ci assistance sociale su fekkoon kër sëñ Tuubaa nga fa la daara ñu mën a waxtaan xool nuñ ko yóbboo jox ko waa daara ji ñu yor ko muy gën a woyof ci yóbbu ko ci centre social yoo xam ne ni beneen diine lañ koy jox kon nag euh, jàpp naa ne kon soñ la ci ñi fa ñu bokk ci daayira yi bokk ci association islamique yi bokk ngir ñu ndax ñi ku nekk mbokkam li nga wax dafa am solo mhm. waaye dafa am ci ñaari niveau mhm. niveau individuel mooy nit ñi seen responsabilité ci bokk ci daay yi ci seen njaboot ci boppam ñu leen ci xiirtal. dëgg la fu ñu dem yóbbu daayira yóbbaale leen mi en tant que communauté yi. Mhm. war nañu bàyyi xel loolu. maanaam ñoom waaj ba nga xam ne bu ñu gisee individu bu war a nekk ci jafe-jafe. Mhm. ñu gàttandu ko. dëgg la fexe ba ñoom ci seen bopp nu ñuy gàttandoo njaboot yi. Mhm. ndax jàpp naa ne loolu sax dafa jot. ñu am ñoom ay structure yu officielles yoo xam dañ koy reconnaître. yoo xam ne tey bu naroon a jël gone. ñoom danañ mën a ne ah mën na ngeen ñu koo jox. dëgg la ca bu boobaa day sarti réew réew ma mm. loolu mënu na dëgg la lu mën a nekk la waxuma la seen njabooti bopp waaye même njabooti jullit yi nga xam ne du ñuy sénégalais sax jafe-jafe bu ma mënee am ñoom war nañoo mën a waaj waaj yoo xam ne mën nañoo jël ñooñu dëgg la loolu li koy dëggal mooy euh, euh, école ya fa nekk ñi nga xam ne dañuy ay doomi sénégalais wala ñu ay doomi jullit su heure jàngale catéchisme mu jotee ñu war a jàng diine dañ leen di bàyyi heure boobu ñu dem defi moral wala ñu defi leneen ndax respecté nañ laïcité boobu respecté nañ di ñàkk gañ ñàkk bokku diine bien vrai que ñu ngi ci euh, euh, ci même école bi euh, fi ma laaj bi ma lay mujj yéen xam naa yola man la xaw ngaa xat mooy dafa am tam beneen phénomène bu ñu gis boo xam ne mooy koo xam ne dafa gis li cëpp moo ci soxna yi gis xale bu góor wala gis waxambaane wu góor woo xam ne nii taalibe la xëy na nga gis ko sopp ko ba ànd ak moom dugg ci lislaam waaye nga dem ba découvrir ci biir ni moom kat lislaam ji xëy na folklore ba nga gis dana ca kaw waaye dundut diine dëgg dëgg dundalu ko ba gis nañ ci kaa yoo xam ni sax soxna yi dañoo daal di am na soxna man soo ma sa gis maa ko dund laaj ko ni ko soxna jaara mun ma tudd ma maam jaara nangam laa tudd ma ne ko alu war a loolu mun ma la tax ma duggoon ci ka ma gisoon loolu gisatuma ko muy muy lu daal loo xam sëñ Sam laaj na ab soññee bu am solo nga wax loolu mm-hmm. te li ciy jiitu sëñ euh, Cheikh mm-hmm. mooy conscience nit ki am yëg-yëg ak responsabilité mm-hmm. xam ne kii ci diine responsabilité dil siwaat waaw ah, ah. ndax yow kii ci diine nga ko woo dëgg la diine tax ngeen xamante mais diine dafa am ay ponk. yow bu ñëwee gis ne lay lay lay fondamentaux yi diine defoo ko. julli woo wooroo yaa nga nekk ci lu la neex di def lu la neex. xam nga loolu am na ku ma ciy nettali dara koo xam ne ki soxna si mu takkoon. Mhm. daa gis muy wayefal julli gi mhm. maanaam fajar du julli mu laaj ko waaye ah, julli pilier la wala du pilier <laughs> mu nekk bëgg ki mu ne ko nee ma rek pilier la wala du pilier dëgg la xam nga kon moom ki ki dugg moom mhm. am logique bu mu indaale absolument mooy lii mooy cëslaay mhm. kon cëslaay yooyu moom kenn waru koo sàggan kon jàpp naa ne loolu mooy li ma doon wax léegi xam nga comportement bi ñuy gis ci kay yow waaw ba ba xemeem la ba dugg ci da nga war a am comportement ci biir nag boo xam ne mooy mhm. lii téye nag mooy liin la moom. dëgg la ak pas-pas ak ak njàngalem diine parce que kii kii dugg si diine day mar diine day xiif diine. dëgg la diine rek moo ko mën a téye. dëgg la ndax folklore mënu koo téye. Mhm. Euh, matériel mënu koo téye. dëgg la mën naa am sax fa mu jóge moo la ëpp kon li am solo mooy spiritualité mooy ruuxaaniya loolu lay mar kon loolu nga ko war a wan mhm. loolu yow ci sa bopp yaa war a yar sa bopp kon maanaam ñoom ñun dañoo war a yar suñu bopp ci li nga xam ne buñ ko bëggee jëflante keneen ñu yar suñ bopp ba nga xam ne dana xam ne ñun diine ñu ko woo ñun ci suñ bopp respecté nañ mhm. te loolu yaakaar naa nag responsable mëg la kon daal ñaari baa yi su ma koy répété ah. mooy am conscience am responsabilité macha allah am conscience am responsabilité c'est docteur moom ngay tàgg Chicago mooy kii màggal si bu ñibbee ban jeexital la màggal war a def ci moom waaw ji wax yow sa laaj yi dafa am solo sëñ Cheikh <laughs> ndax dañ cee toll nag nit ki dafa war a xam ne lii muy dëgmal mhm. jaamu yàlla la borom du folklore du folklore dëgg la te xam nga ne jaamu yàlla mhm. li ci jiitu mooy yéene dëgg la kon kii ñëw war naa am lu mu fas ci xolam damay jaamu ji yàlla loolu boo ko xasee fas ci sa xol dafa am lu muy laaj comportement bu muy laaj doxalee nu muy laaj nga xam ne yow dangaa nekk ci biir ak jaamu yàlla jaamu yàlla bu dafa laaj doo yàqal kenn doo tooñ kenn mhm. di jéggale dëgg la mën a muñ mën a dékku mhm. ndax xam nga ne jaamu yàlla bu nekk dana ànd ak muñ ñu ñëw Tuubaa ay coono dana fi am mhm. ñi nga xam ne ko boo demee Màkka gis nga coono fi nit ñi daj waaye danga koy muñ mën a xajoo kon kii ñëw war naa indi yéene ju sell. dëgg la aussi wut. Mhm. ñëwut rek ndax cant gi ak sant la baatu sant jaamu yàlla la. dëgg la kon lekk même li ngay loo sax da nga ci yéene sant. suñu mhm. dëgg la kon jàpp naa ne kii ñëw. Mhm. mu ñëw ci ak yar. ak i teggin mhm. tax fas yéene lim fiy def lépp ak jaamu yàlla lay doon ba mu fi jóge dëgg la xam na it dëkk war a war naa fas yéene bu fiy jóge yóbbaale dëgg la ab yóbbal mooy jikko maanaam bu fi ñëwoo mhm. bu fi dellu bu gën a baax dëgg la gën a tabe mhm. gën waaye jógee jógee Touba delluwaat fa nga fa nga jóge woon ca dara changé wut ci sa comportement loolu jàpp naa ne ak càggante la dëgg la kon ñi ñu fiy fekk siit ñoom it ñu am sas bu gën a rëy ñoom ndax ki nga xam ne day ñëw di waaj ne Touba laa jëm Touba di am na loo xam ne kat jaaduwu fa mhm. kon man su fekkoon ne dama koo tàmmoon sax dama koy bàyyi dëgg la danaa wagar dëkk la waaw mhm. yow ñëw yow mu fekk si mhm. fekk lam doon moytu bañ koo indaale yow fekk la ca dëgg la loolu déception lay indi wala xeeb la yow duñ xeeb sëñ bi sax ndax sëñ bi xam nañ ne moom njàngaleem lu leer la waaye yow mi nga xam ne yaa ko waroon a jëmmal jëmmalatoo ko yow yaa dëkk ci dëkk bi waroon ko warmal warmalatoo ko loolu jàpp naa ne it aw aw aw lu mat a waggar la kon ñi ñëw mhm. ñu ñëw ci pas-pas ak yéene jaamu yàlla ñi ñi fi fekk dalal leen ci yar ak i teggin ak comportement bu jub sëñ Muntaxa dafa wax lu leer <laughs> dëgg la xam nga ci bi muy woote bi muy bi muy woote woote màggal mhm. da caa wax sant gi lan la mhm. waaye dafa wax ne ngir ñu sant sëñ bi day fekk ñu mel na bëgg. dëgg la. nañ ko bàyyi xel. dëgg la. mel na bëgg mu mu mu tënk ci ñaar mu tënk ko ci ñaari kàddu. Mhm. mooy jublu suñ borom wan ginnaaw àdduna. jublu suñu borom kon mooy looy def suñ borom nga jublu dëgg la wan ginnaaw adduna yi tekkiwul ne doo doo laal dara ci àdduna waaye adduna du du nekk ci sam xol dëgg la adduna waru laa jaral ñàkkante mhm. waru laa jaral xasnante waru laa jaral xeex waru laa jaral xulóol mhm. am ko ak ñàkk nga war a yemaleen loo ci am jéem koo defaat ci suñu borom doguma la professeur jànge ci kii nga xam ne mooy sant borom bi ni ci circonstance yu métti la nekk saalitut mu am ngëm gu doy ne jëm naa ci ay nattu ànd ak noonu yu yu yoo xam ne mu ci mën génn yërmande waaye ma doyloo sama borom war na noo berndeel ruu yi berndeel biir benn ruu ci ngëm yàlla doyloo ko bàyyi ko suñ bopp te ne ci mu bëgg dëgg la ndax ndax mémoire dafa am solo mm. maanaam fàttaliku circonstance ya xam ne lii mu am kat ne noflaay mayu ko ko déedéet ca it ñu jàngee ci waale jéggale dëgg la ndax damay maanaam ñaar ñu fi xuloo mm-hmm. kenn deful sa moroom lu toll ne fepp liñ def sëñ bi sëñ bi jéggale te da ngay gis koo xam ne dana mën a bàyyi mbokkum taalibe mbokkum taalibeem ren ak déwén ko ci lu ndaw wallahi azim kon yow xanaa kon royo sëñ bi sëñ bi liñ ko daj mhm. taqali ko njabootam teg ko ci loo xam ne kenn mënu koo tudd ak làmmiñ mu wëlbati ko jéggale ci xol bu sell loolu ku fi ñëw war nga koo jàng macha allah waaw war nga ko bàyyi xel <laughs> doo jàppal kenn dara doo ëmbal kenn dara loolu ay sens la yoo xam ne dañ ko war a dégg ci màggal gi jàng macha allah macha allah jërëjëf waxtaan bi doyluñ ci waaye xam nga nag euh, en marge forum bi rek la ñu doon andi di ay jataay yu am solo ñu ngi sant bu baax docteur Sëñ Sam Bousso ci jàngat bu am solo bi nga xam ne def kon yaakaar naa ne dégg ngeen point yi nga xam ne développé na ko dif yi nga xam ne diaspora bi am nañu ko ak bokki taalibe yi nga xamante ni euh, dañ leen a gi am soxna am ñi ñu ànd dañ ñu ci ñoom euh, bu mu dañ mukk mooy di mooy diine ju sell mooy yitte ju ndax liggéey bi ngay liggéey bu am solo la bokk na ci barab bi nga xam ne barabu yaakaaru la ndax damay wax ne bokk na ci ñaani sëriñ Tuubaa yi nangu wajalu dahban maskana taallumi wa mawdi'al fikrati wa tafahumi wa maskana al irshadi mi ci madaw foofu seni kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la jaajëfal sa professeur jazakallahu xayran